xam naa daal ngóor si mus na wax ni man nag man <laughs> am na fu mu àndoon ak man man nag moom mus ma ànd ak moom fenn waaye moom ci boppam moom ne mel na ni moom enveloppe moom ñeme na ko lool ci lu mu yomb na ci moom comme ni mu ko waxee que <laughs> moom nee na euh, maag moom dafa dañ daan ànd suñu ànd fenn ku sénégalais yi sénégalais yi ñuy wax duñu dañuy jàpp ni loolu mën na nekk ndax <laughs> buñ la gisee nga taxaw Gabon di joxe ay enveloppe gis nga taxaw France joxe ay enveloppe nga taxaw ay kii di joxe ay paas ak ay kii xaalis boobu fan nga koy denc ak fan nga fan nga koy jëlee yaa ngi joxe enveloppe rek bu ñu ma gisoon man ma def ko nii bu ñu giseen keneen def ko dañ ko topp wala war nañ ko topp lii war nañ ko leeral parce que li ma gis mooy ci ay saalu saalu hôtel mhm. ay enveloppe yu bëri di circuler te loolu war nañ ko leeral. ci dëkk bu ndóol Gabon France fi nga xam ne nit ñi foofu la xaalis bi di jogee di ñëw Sénégal bu fekkee ne foofu la ñuy joxe ay quinze millions d'euros pass xaw ma ñaata millions d'euros pass. te xaalis boobu ma nekk na APR xam naa cotisation APR yu mu doon demee ah jàpp ma ni cotisation APR ba bu may nekk ministre 2017 donc li ñu war a wax te loolu moo tax ñu ne justice dafa war a am ci mbir